li kulli muridin waslil képp koo xam ne murid la a taale boo xam ne jóg na pour bëgg a yegg ci yàlla loolu la sëñ Tuubaa woote woon muridullaahi ay na muridullaahi ana kan mooy nam ma jëm ci yàlla sëñ Tuubaa loolu la woote woon ana kan mooy nam ma jëm ci yàlla moo tax mu bind ci téeréem ci Masaalikul Jinaan wax ne turuqul awliyaa yi atqiyaa qaaidatu naasi ilal ulyaa سواء انتم الى جيلي او لاحمد تجاني او لساسلي is kullun qadan ala sawaabi soo demee ci masaalikul jinaan ni ma ko waxee jub na jubut waaye boo demee danga ko fekk Seex Abdul Qaadir Jeylaani Ahmadu Bamba wax ne maam borom Tuuba mbooleem tariqaay wàllu yu yàlla yi ñoom ñëpp dañuy xamat jaam yi pour yóbbu leen ci seen borom moo xam muy Seexu Tijaani moo xam muy Abdul Qaadir Jeylaani moo xam muy imaamu Saasili imaamu Saadili tariqa la yoroon Abdou Qaari Jaylaani amoon tariqaam ak mboolem yeneen tariqa yoo xam ne sax xamuñ leen yegsiwuñ fii ci Sénégal ñoom ñoom nag seen tariqa yooyu lu leen taxoon a jóg mooy xomat jaam bi ba yóbbu leen ci seen borom wa wax leen ha anta wa rabbuka sa yàllaa ngi sa borom a ngi nii bàyyi na bi mu ñëwee moom moo mujj ci mujjadit yooyu bàyyi moo mujj ci ñi nga xam ne dañuy woote jëmale ci yàlla bi mu na nag képp ko ànd ak moom rek li kulli muridin wasli haqq moo tax mu ne wasulu jamil maasikina bi habliya taxaqaqahu man lam yukazib bi rabbiya bàyyi ne képp ku jàpp ci sama buum gi yegg nga ci sa borom te kan moo dëggal loolu mooy koo xam ne du mas a fen taalibe baay bu yegg ci yàlla ki dëggal sa yegg ci yàlla mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax Seex Kaamil daf daan wax ne bu ci nekk war nay xam kan mooy moom moom kan balaa kenn di la gëm sax taxawal ci maqaamam ilaahi yàlla balaa kenn di ko gëm moo njëkk a gëm boppam kon sag xaarif yéetu yow balaa kenn di la gëm ne xaarif nga sax yaa war a njëkk a gëm sag xaarif moom lépp lu mu waxaan rek alquran la amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wa wal muminuna kullun amana billahi kooku yonent yàlla muhammad gëm na moom ak yonentum ak lépp loo xam ne moom lañ wàccee ci yeneen yonent kon xaarifu billahi dina gëm ak xaarifam gëm mbooleem xaarib yi seen ak xaarib waaye yàlla moom it noonu la gëmee boppam shahida allahu annahu laa ilaha illa hu yàlla seere na ne moom rek mooy yàlla kan moo ci topp wal malaayikatu malaaka yi ñoom soog a ñëw ñoome seede kan borom xam-xam yi ñëw ñoome soog a seede kon aarif billahi foofu lañ nekkoon bàyyi wax ne képp ku jàpp ci yoon bi yegg nga kan moo dëggal sa gi yegg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne man lam yu kasib bi rabbiya koo xam ne du fen ci boromam lan moo tax bàyyi ne yonentu du fen ci boromam am na ñoo xam ne fen loo nañ ci seen yonentu ci seen borom ku ci mel ne yonentu yàlla Iisaa ñi ko topp dañoo dañoo fen ci seen borom ku ci mel ne yonentu yàlla Muusaa ñi ko topp yi dañoo fen loo ci seen borom yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak képp koo xam ne Muhammad yoonu nga yow doo fen ci yàlla doo fenal yonentu ci yàlla moo tax yonentu bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku ma fenal na nga préparé sa siège bu mag te digg safara bàyyi nag ne ki dëggal sunu yegg mooy koo xam ne du fen ci kon ñu moo tax ma ne ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ne na yóbbu nañu bañ ànd ak baay moom nga xam ne dëgg-dëgg ànd ak moom foofu lay jëmale jaami bàyyi dafa wax ne moom wootewul benn maqaama rawatina maqaamaay këshfu kaama maqaamaay karaama bàyyi ne tasrufa su ma ko yàlla joxoon كنون دغ دغ دينا تصرفات قول جام يا لي بين نكال يال با الى يونا لا ما سيخت جان وقت لا برام جوت الكمال وخني ونوري اللهم صل وسلم على عين رحمتي رباني ينتي على محمد نم نكي رباني باي نون نكي رباني واي نون نكي الهي ما نعم باي نيكو شيخ برهام وخي موتي باي دفا يالله دفا يالله bàyyi fi mu commencé ba fi mu jeexalee léppam yàlla amul dara lu ci génn yàlla moo tax bi mu juddoo soxla ku koy tarbiya ndax dafa judd set xam nga kurut bàyyi jaar na ci tarbiya yonent yàlla Muhammad moo gën a foor ci meneeku yàlla yi moo gën bàyyi waaye moom jaar na ci tarbiya ci ka tarbiya mooy Jibril maanaam Jibril mooy sëriñam ci yoon yi ba mu yeg Seexu Tijaan li muy foor foor dégg naa benn waaye sax bu ne Seexu Tijaan mas nay am ñetti téeméeri sëriñ gisaguma ko waaye taalibe tijaan la bu ko wax ci tariqa bi gë maanaam loolu dégg nañ ko gëm nañ waaye ñun liñ jàng mooy Cheikh Tidiane moom juróom maanaam lu mu néew néew am na juróom-ñaari sëriñ soo demee ci jawaaril maani yi limal nañ ko ba fanweeri sëriñ am na ñeneen ñu limal Cheikh Tidiane euh, fukki sëriñ ak ñaar du sëriñ waaye ñetti téeméeri sëriñ même su ko xamoon sëriñ yëpp bàyyi na leen fa ndax yegg ñooñu kenn na ci ñoom yeggalewu ko ci yàlla bay nak mom bim mu amul kenn ko xamal yalla kenn mo doon wax ne bay maa nga xamal yalla kenn mo doon wax ne it man maa nga tarbiya kenn mo doon wax ne may serigne kenn mo doon wax ne it jaar na ci dara waye ko dut mom ding ko limal ci dara bu jaar bay ne na seyou tudjar li tax mi serigne am len la moy kat wasitatu bi nga xamne mom la am ci digeentem ak yonent maanaam Seex Tijaan nekk gi mu nekk maanaam sëriñam bay digganteem la ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lan astaghfirullah saadu faate laa ilaha illallah yonentu yàlla Muhammad nekk gi mu nekk sëriñam Baye Niass mooy lan moo ko jokkale digganteem ak pays ba waaye Baye am na loo xam ne ci pays ba rek la bàyyee boo daal di ñëw waxuma nag Baye moo gën yonentu ma Baye moo gën Seexu Tijaan waaye am na loo xam ne directement ci pays bi yàlla bala bàyyee koo yegg si ci moom xam nga ay jamono ñu ngi wax ci lijaasa yoo xam ne mu ngi jógee ko maanaam maam Abdoulaye Niass ay mbokki tijaaram ñoo ko jox baay bi muy lim ay lijaasaam ndigal yi mu am moom baay wax na ne jëlee na ci baayam jëlee na ci sukkeerijaam jëlee na ci yoo xam ne direct ak digganteem ak seexu tijaan la jëlee na yoo xam ne direct digganteem ak yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam waaye jëlee na yoo xam ne direct digganteem ak ku yëpp yàlla bi na léegi nag li lay firi loolu yëpp mooy lan mooy bi nga xamee ne baay commencé njëlbeenam dañoo wax ne danaan julli daan def ne maanaam di wàccee loxoom comme Cheikh Tidiane ni mu ko daan defee bi demee ba nga xam ne maqaam bi ñëw na mu julli jël loxoom ak ci kaw kuy taalibe Baay Ñas rek ci loolu ngay nekk waaw yow sa Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane mooy ñu sëriñ mu ne waaw moom bu daan julli day wàccee loxoom xam nga nit ñi moom jaxase ñoo ko fi dinañ jaxase nit ak nit dinañ jaxase nit ak boromam sax dinañ jël sax nit jaxase kaag yaayam nit jaxase kaag jëkkëram. yemut ci nag ba dinañ jël sax taale bi jaxase ko ak sëriñam ku toll ni Baay Ñas nga bëgg jaar digganteem ak Seexu Tijaan ah yow sa sëriñ nga ne Seexu Tijaan la mu ne waaw bàyyi lim tàgg Seexu Tijaan kenn xamutum toll nga ne waaw léegi Seexu Tijaan moom da daan juli a ah, di wàccee loxo yow nga ne Seexu Tijaan mooy sa sëriñ te moom yow boo jullee nii ngay def sa loxo léegi nag bu fekkoon ne du sëriñ boo xam ne du taale bi bu am xam-xam konoon mu daal di gat bàyyi ne Seexu Tijaan mooy sama sëriñ ci yoon bi ci tariqa Tijaan la nekk sama sëriñ waaye nag ci lislaam moom roy ma ci képp yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa ci roy aka amoon fu la moom bàyyi bàyyi sëriñ bi dafa wax ne nañu roy Seexu Tijaan sooy dem di uti dara sooy uti dara amoon fu la soo demee ba gis ko ci ki nga daan uti amal fayda téye ko maanaam yow jaam bi nga xam ne yaa ngi am uti yàlla demal ci sëriñ bu la neex ngir uti xam-xam kam kam kam yalla so demé na ba xamul la yàlla bu la nexé nga bàyyi ko fa dem ci benen sëri bu la xamal yàlla sëriñ bu mu mëna doon nak bo demé ba am ci mom yàlla bu la nexé te yel bu mu dëgër bu la dara jëlé ci mom motax tax Baye Niass bi mu demee ba xamné mbiri kat yonent yàlla Muhammad la daf ne diina mom ci yonent bi la kay royee sallallahu alayhi wasallam tariqa nak ci Seexu Tijaan laa koy royee moo tax bi mu demee Faas ñëw gis nañ ne Faas bu ñuy la seen malaan ni lañ koy def waaw nu mu nday yor ak càmmoñ bàyyi bi mu ñëwee xam ne maqaam bi nii la dafa ñëw def ko pénku ak xarf pénku ak xarf Seexu Tijaan bàyyi wax na ne Seexu Tijaan ci dundam lépp mosut wasifa avant timis moo tax bi mu ñëwee it wasifa gannaaw timis rek la koy def li Seexu Tijaan doon def yëpp moom bàyyi xam na ko yonent Yàlla Muhammad ni mu daan def yëpp moom bàyyi xam na ko bàyyi wax na ci tafsir tafsir ba mu yàgg mu ne yonent Yàlla Muhammad yëkkati baaraamam bii waaye loolu magu magu magu bi maam Khalifa Niass maqaama boobu amoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa gàmm ba gàmm gi mu jóg wan gaa yonent ni mu doon doxee moom maam Khalifa Niass toog ba mu yàgg génnee leen karaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génnee leen karaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy maam Khalifa Niass mooy pa Sidi ah Lamine Niass ak papay xalifa ñas am ahmad xalifa ñas ñaseen yooyu mooy seen mooy seen mooy seenu sëriñ waaye nag bàyyi bi mu ñëwee moom am na lu ëpp loolu ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nu mu def rek noonu la nu mu waxee it noonu la bàyyi nu mu reyee sax yonent jàppal ne yonent la daan reyee nu muy doxee sax jàppal ne yonent sallallahu alayhi wa doon doxee moom du jiyeg yonent bi tarfatal ayni moon bàyyi ñas du jiyeg yonent bi tarfatal ayni